anyway fii ngeen koy dégloo ci émission ba jaaxle comme ni ma leen ko waxee woon sànq alors 9h15 kuréel gi nga xam ni ñoo yor kàddu sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides fii ci diaspora bi war a tasaare ndigalu juma Tuubaa bi ñoom lañ fi ganale tey jii nii dans une minute su ko defee ñu amal ñu waxtaan yee ñu ci li nga xam ne mooy ndigal boobu sëñ Muntaga Muntaxa Mbàkke yónnee ci biir diaspora bi du ñu def rek lu dul jël benn pause après ñu dellu si ci waxtaan bi. waaw comme comme ni ma leen ko waxee woon ci njëlbeen kuréel gi nga xam ni ñoo war a tasaare ndigalu sëñ Muntaxa Mbàkke jëmale ko ci liggéey jumaawu Tuubaa bi la ñuy daal di rek jébal kàddu gi sama xarit sama am di jàmm Mbàkke Cuun maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ci at bu bees bi la bismillah fii ci émission Ba Ndiakhté
ah waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Modibo sama xarit maa ngi lay nuyu di la delloo di di la fay di la jaajëfal waaw ni nga ko waxee kuréel gi nga xam ne nii moo ŋànk liggéey bi nga xam ne dafa jëm ci jumaa ji sëñ bi yëkkati ko tey jii ñoo ñëw di am jataay fii ci rajo bi na nga ko daa ubbelee bis bu ne ñoo ngi lay nuyu sëñ Modibo.
jërëjëf bismillah Mbacke
alhamdulilah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi ñuy déglu mbokki diaspora bi rawati taalibe Cheikh Al Xadim tey jii fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America mi ngi ànd ak yeneen kuréeli murit yi na ci Amérique ñëw tey di am waxtaan woo xam ne bëgg nañ koo yëkkati ci rajo Allo Dakar ci sunu frère Moriba Diagne nga xam ne chaque année moom it ak du chaque année sax chaque instant bu nu amee ay information nu bëgg a jàllale mu tijju rajo bi jox nu temps ñu dem tey jii nag ñin fi waroon a àndal ñoo ngi leen ci séentu yaakaar ni ñoom ñëpp dinañ ñëw tàmbalee ci jëwriñ Papa Sette Dramé bi nga xam ne moo ŋànk Mika waaye ñu ànd bëggoon ànd ak jëwriñ Modou Ndiaye xasida moom nag sax bi yónnee na ma léegi message wax ni danoo nekk ci mboot meeting ci xasida day waaye ñoo ngi doon séentu sëñ Rijal Gueye mi nga xam ne nii moo jiite kuréelu jaalibatul muraaxib di kuréelu xasida koo xam ne ñu ngi fii di yëngu ci yoon wi waaye tey jii ñoo ngi ànd ci côté fondation bi porte parole bi war a ñëw di sëñ El Hadj Modou Kayte Thiam waaye ñoo ngi ànd ak sunu rak sëñ Papa Amar moom it nekk Canada taxaw di coordonner liggéey bi au niveau Canada kon ñu xam ne liggéey bi Amérique la ak ak ak Canada waaye ànd ak jëwriñu soxna yi ci fondation bi di soxna Khady Sall moom it di sëtu maam Thierno mi ngi nii ci biir ci jataay bi. waaye ànd ko ak yi nga xam ne moom it daanaka mooy pivoté liggéey bi di sëñ Mara Ndiaye nekk Missouri moom it jiite comité Kër Sëñ Tuubaa ci fondation bi ànd ak it sunu doom Pape Gora Samb nekk comité PR moom it di taxaw am taxawaay bu rëy ci biir fondation bi kon tey jii ñii jataay bi nii ak ak sunu xarit sëñ Mass Booro sëñ Mass Booro sëñ Mass Booro nekk jëwriñu Washington moom it di fa liggéey liggéey bu rëy rëy ci liggéey bi daanaka bokk na ci ñi nga xam ni kenn gën ko ci ëpp pas-pas ak taxawaay kon jataay bi mi ngi nii xam naa ni dañuy ñëw tàmbali tour de table quarante cinq minutes rek la bu dix heures jataay bi dina jeex ñu tàmbalee ko ci seet sëñ Mara Ndiaye mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ci comité bi ñu créé sëñ Mara mu tijji bu tijjee ñu jox suñ porte parole suñ Pape Amar après def tour table bi kenn ku ci ne nuyoo ak na nga war a wootee sëñ Mara bisimilah. Mara sëñ Mara. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kon mu mel ni kooku soxna Xadi Sall la soxna Xadi ngi soog a dugg si léegi xam naa sëñ Mara lañ doon bëgg mu tijji waaye danoo bañ a kon téye lu yàgg ndax suñ Pape Amar fi muy wootee sori na ak condition yi muy duggee suñ Pape kon ñoo ngi lay jox kàddu gi nga tijji nuyoo après ñu ngi def tour de table soog kenn ku ci ne. am nooy wootee ci liggéey bi nga xam ni ñun ñii féete ci taalib yi féete ci Amérique ak Canada ñoo ko yëkkati di wuyu woote Cheikh Mouhamadou Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal sëñ Pape bisimilah.
auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu Modou Yobbo di ko sant bu baax ci dal gi nga xam ne dal nañu ko di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ngi ànd teew fii di àndin bu rafet boo xamante ni bii di ko waral Baye Mbacke cuun junj na ko léegi dañoo nekk benn say boo xam ne di ñu boole rek mooy li nga xamante ni bii mooy liggéeyu Serigne Touba te loolu ñu yàgg koo doxale ku nekk nag am si fànn boo xam ne moom nga féete di ko doxee di ko doxin doxalit bu rafet tey jii nag ñu toog ba suñ boroom def ñu ànd liggéey boo xam ne daanaka mën nañu wax ne dañ ñu ko boole te boole ko murit yëpp fuñ mën a nekk ci àdduna waaye nag ñun ñi nga xam ne dañ nekk Amérique ak Canada suñ boroom def ñu am ci ak beral goo xam ne dañu koo beral te beral googu li ko waral mooy daa am ndigal loo xam ne dañ koo jotoon mu jóge ci cheikh mouhamadul mumtaka yàlla na fi yàgg lool te wér ne woon ñu nekk canada ak amérique te leen a sasoon ngir ñu tabax ay kër yoo xam ne te ko doon jubluwaay ba moo doon ñu nekkal ci ñi nga xam ne yàlla dafa defoon mën ni mi nangu woon seeni barab ñu dem tuuti rek dox tuuti moom cheikh mouhamadin muntaka wax ni dafa am lu ñëw wax ak moom te li mu wax ak moom mooy yitteem yépp naka jël jëmale ko ci jumaa ji kon ci loolu ñu woowaat ñu ñun ne ñu la ngeen nekkoon kat xam ne ni yéen a ngi si doon def ay jéego waaye wëlbati leen lépp jëmale ko ci jumaa ji loolu nag dafa nekk soññee boo xam ne murit bu nekk rek war naa gën a dolli sa pas-pas boo xam ne da ngaa nekk Amérique ak Canada xam nañ ni woote yi bëri na ku ne it am nañ ne da nga am foo jokk nekk fa dafa liggéeyal Serigne Touba waaye bii daa nekk woote boo xam ne dañu see tudd beral ñu ci loxo kon nag ñu war see taxaw taxawaay boo xam ne dana wane ne murit yi Canada ak Amérique taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk te it kun doon woo ci ay kër këri nit ba ñu woo la ci kër yàlla te kër yàlla goo xamante ne bii ñun ñëpp xam nañ ñi nga xamante ne bii Serigne Touba noonu la ko yittile woon ndax dégg ngeen xisam boobu sa gabon nga xamante ne soldaar yi ñëw nañ fekk mel ne jàkkaam i tegoon fa ay bant di fa jullee soldaar yi ñëw def fa noo xam ne naka dul sudul noonu di yéeli say yendu takkusaan ba timis di xuloog soldaar bi ne ko kii jotawut ak yow dara Sëriñ Tuubaa ñaan foofee ne loo tub salaatan ma salaamin bi aalihi wa ashaabihi wa jaxal bihi masjidi rabba xam ne foofu la ko suñu borom nangu de jumaay njaareem ak jumaay tuuba jumaay tuuba it te matlabul fawzay maa ngi koy ñaan ne sama borom da nga jéggal képp koo xamante ne bii sonn na ci liggéey bii wala képp koo xam ne fekk na leen ci wala képp koo xam ne dimbale na leen ci kon lii bu ñëwee dañoo jàpp ne ñun dimbal la ci ñun ngir ñu dabaatal li nga xamante ne fekk wuñ ko woon muy gasub raay li nga xamante ne fekk wuñ ko woon muy doomi sëñ Touba yi sëñ Fall wax nañ ne da doon dem ba ndokk ci yenu ci xeer yi di indi Touba kon buñ amee tawfeex bi suñ borom dimbali ñu bañ tudd ñu si liggéey gi war nañ see def suñ kéemti lay kàttan bañ a xool ne fii laa bokk wala fee laa bokk waaye ñu nekk benn say liggéeyee leen ko sëñ Touba wane si Pastef bu mat sëkk kon nag ñu ngi si woo ñëpp képp koo xam ne daal bañ ci si barkeelu xam naa ni ñeneen ñi dinañ si ñëw waaye boo defee texte rek five three five five five da lay yóbbu ci ab link link boobu dugal la ci plateforme bi nga xam ne wala ñuy dajalee ak dijey ko defee boo ko dugalee boo duggee yow da nga gis fan tool fin tool ñi tembe ñu ngi ci cent trente mille dollars yoo xam ne dajalee gudd nañ ko muy Amérique ak Canada te suñu yéene mooy lañ ñu joxoon seen digal lu njëkk la deux millions de dollars yi ñu nattoon ne mën nañ koo am buñ ko yombale suñ bopp kon bàyyi bàggee xam naa xuus naa sax waaye damay bañ rek macha kii bi allah tax moo tax ma waxee noonu di nuyu ñëpp macha allah suñ Pape kaddu yi mel na ni mat na sëkk daanaka résumé nga li waral jataay bi waaye yéen au niveau Canada foo leen ci toll ak yan ban stratégie ngeen jël foofu Canada ci laajte bi.
waaw jërëjëf Baye Mbacke waaw fii ci Canada moom ni nga ko xamee rek ñëpp ñi nga xamante ne bii ñu ngi fi di ay mbokki taalibe ñu ngi ciy liggéey daayira yëpp ñu ngi ciy yëngu di ci dox mais ñii muy daara yi nga xam ne dañoo bokk da ñàkk jekk daa fekkoon ñu bokk ci fondation Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi nga xamante ne bii tàbbaleeguñ ci tamit ñëpp ngi ciy dox ba xoo boo xoolee li nga xam ne mi ngi report yi di ñëw di nga gis ne Montréal mbokki taalibe yi ci ñu ci ñu ci profité di leen sant ci seen taxawaay di leen di leen kañ bu baax a baax a baax a baax ndax wane nañ ci lu jéggi dayo boo xoolee Montréal liñ fi dabal dugalaguñ ci plateforme bi mat na trente mille dollars nga xool Longueuil ñu ci ay neuf mille nangam Ottawa dugal nañ deux mille nangam Calgary dugal nañ kon ñëpp nga ciy dox ñi nga xamante ne bi tamit ay mbokk taalibe la ñu fi nekk wax dëgg yàlla samedi bu jot da ngay gis ku ñëw tabbal dara ci adiyaam te jaayante it incha allah ne la nga xamante noonu lañ ko jaayante woon ca kër ya loolu lañ ko bëgg a fasalee fas yéenee matal kon foofii ñu ngi koy yaatal ci plateforme yi ci daayira yi ñu ngi koy waxtaane te it ñu ngi koy yaatal ci réseau communication yi nga xam ne moo nekk biir Canada yépp bay barke
macha allah sëñ Pape jërëjëf xam naa ne boo taxawee ca kanam tuuti bu la ko sa connexion mayee danañ dellusiwaat ci yow waaye ma macha allah kàddu yi rafet na kàddu yi mat na sëkk mu mel ni dañoo bëgg a transitionné noonu dem ci soxna Xadi Sall soxna Xadi moom maam Thierno soxna Xadi xam na yow yaa jiite soxna yi fondation bi laajte bi dégg ngeen ko soxna yi nan lañ ci taxaw waaye bu loolu weesoo yaa ngi Atlanta Atlanta yan taxawaay ngeen am bi woote bi jógee soxna Xadi
waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Baye Mbacke ñoo ngi nuyu ñi nga xam ne bokk nañoo ñun jotaay bi di nuyu waa New York di nuyu waa àddina di nuyu waa Amérique ak waa Canada waa nga laaj ma laaj bu am solo nag muy li jëm ci waa Atlanta mi ci taxawee Atlanta nag def ci jéego yu mat yu matale yu am solo yoo xam ne stratégie boo xam ne daal jéggi na doye ni ko fondation si Ahmadou Bamba taxawale rek laajte ak li jëm ci jumaa ji noonu la ko waa Atlanta taxawee fas yéene na ko ne liñ sas mbooloo mënuma ko wax sas ndax ndax kenn ku ci nekk si ñun bu sañoon liggéey bi nga def ko kon woote boobu rek la ñuy woote ni ko sëñ Pape waxee woote jumaa ji moom day woote boo xam ne woote bu wuteeg woote yëpp la ndax lii defe naa ne musta am sëñ Muntaxa joxoon ñu liggéey tey la ko sa am moo tax nag Atlanta gépp taxaw nañu fas yéene ko ànd fondation Cheikh Ahmadou Bamba ba lépp suñu këmtalaay kàttan bëgg nañ daal bu soobee yàlla lépp luñ fi lu fi mbooloo bu fi nekk dinañ fexe li nga xam ne sasoo nga ko nga indi ko ci ci ci ci biir liggéey bi ndax liggéey bi kat kenn deful ko kenn kenn ku nekk sa bopp na liggéeyam liggéey bi jëm ci jumaa ji la noonu la ko womantam comité taxawee ñu ànd ko soxna maam jaare yëpp yoo xam ne képp gépp jigéen boo xam ne yaa ngi jiite soxna maam maam jaara ci ci ci ci biir fondation bi noonu la ñu coordonné ak yow nga soññ sa biir daayira noonu la ko waa seen sinaati bi defe noonu la ko waa Dallas defe noonu la ko yeneen dëkk yi defe woote bi nag defe naa ne kuñ ci woo war ngaa gaaw ko ñëw woote suñ mun taxaa bu jëm ci mbool mbool mbokk jullit ak mbokk taalibe yi bu jëm ci jumaa ji suñu bopp kër lañ koy defal loolu daal laa xam ne moom mooy mooy woote bi te kenn ku ci nekk na xam ne ah du ma ne bu bu ñu rawee de waaye lii de bu ñu rawee de dinañ dinañ di ku ci deful de xam naa ne di nga ko rëccu ku ci defit di nga ko yëg ñoo ngi ciy woo daal suñu mbokk soxna yi te xam naa ne kenn du leen ci mën bu soobee yàlla Atlanta mi ngi ciy taxaw ñoom fundraising incha allah lañ ko bëgg a defal dugg ci biir kastu rajab bi bu soobee yàlla waaye nit ñi ko commencé nañu fi ne ñu ngi nii sax ci daayira bi te ci loolu képp fi ne la ñuy waxtaane tey jii ñoom daal seen jubluwaay lépp lu mu doon def teg nañ ko ci suuf jublu ci liggéey boobu dëgmal ci liggéey boobu gisatuñ dara déggatuñ dara ndigal lii sëñ Muntaxa jox ñu ñu ndigal lu sotti ba noppi lépp lu ñuy def doog koy def bépp liggéey buñ doon def taxawal nañ ko lépp luñ doon laaj ci jumaa ji taxawal nañ ko lépp daal ñu ngi jublu ci lii ñu lii ñu lii ñu ndigal lii ñu ñu dox ñu jëm ca foofu dong fi ne la Atlanta tool gisatuñu dara déggatuñu dara ñu ngi ci ndigal suñu taxaa loolu tam la ko fondation Cheikh Ahmadou Bamba taxawale ñu ànd ko ñoom topp ci seen ginnaaw ci njiitu seen Fallou Samb ak yéen ñi nga xam ne yéen ñoo yéen lañu sant liggéey bi ngeen jiitu ñu topp ci seen ginnaaw noonu tam lu ko woon comité ànd ak yéen ci soxna jaare yëpp président soxna jaare yëpp parce que yéen koo ànd ak yéen ci liggéey bi Baye Mbacke maa ngi lay delloo kàddu gi di di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di di di ñaanal suñu taxaar Bachir mu yàgg si loolu te wér ñu dugg ba liggéey bi mu yeggale ko ci sagoom ñu ànd ko ñoom moom ci ci ci ci ci jàmm ak salaam mu mu ubbi ko ñoo ngi lay delloo kàddu gi Baye Mbacke.
macha allah soxna Xadi jërëjëf ci kàddu yu yu matal yi ak kàddu yu rafet yi mu mel ni ñun ñëpp ko déggandoo mbooloo murit yi ne ci Amérique ñoo lonkoo ci njiitalu fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America waaye ñu ànd ko waa Mika Mika Murid International Murid Murid Islamic Community of America ci njiitalu Sëriñ Papa Sette Dramé waaye ñu ànd ko kuri kuréelu xaside yi fi nekk yëpp ci Amérique di jaalibatul maraaxib ak xaside day waaye ànd kook waa Canada di nuuru daara yi ni Montréal waaye yeneen banqaas yi nekk Canada yi di liggéey di nekk banqaas yi taalib yi ñoom it suufu nañ ko liggéey kon àndandoo bi àndandoo bu inclusif la ñun ñëpp ñoo ci àndandoo di wuyu woote bi nga xam ne sëñ Muntaxa moo ko woote waaye ñu fàttali li tax àndandoo bi war war a gën a dëgër Pape Amara nga koy wax léegi dañ nu joxoñ ne nu yéen waa Amérique ak waa Canada ca njëlbéen ga porte parole fon yoon wi di yëkkati kàddu ak ay vidéo ñun ñëpp ñu gis ko mu ni sëñ bi kat dafa dafa sàkkoon ci yéen ngeen def soixante six kër pour jàppale ñi nga xam ne nii ndox dafa nangu woon seen i barab ñu toog ab diir mu génnaat wax na nu sëñ bi kat loolu ndigal loolu ci ba mu jógee gis na ci seen pas-pas mi ngi ñoo ngi ciy sant bu baax a baax waaye dafa am jeneen ndigal gu ñëw tegu ci kawam sëñ bi bëggoon ñu gën a jublu ci ndigal loolu muy jumaa ji ba mu ko defee ñu ñu fekk ñu tàmbali woon nekk ci élan booba ñu continuer loola shift suñu énergie bépp jubale ko ci jumaa ji àndandoo nan ko àndandoo woon comme sëñ Mara Ndiaye ca noona lañ créé benn comité sëñ Mara jiite ko sëñ Mara objectif bu comité bii nga xam ne nii mooy ndigal jumaay Tuubaa nga xam ne ñëpp ñëpp ñoo ko àndandoo seen objectif moo doon raise deux millions de dollars objectif bi individuellement mooy kenn ku ci ne nga pledge mille dollars nan nga ko mën a joxe da nga ko war a joxe benn yoon ou bien da nga koy war a joxe tey mbaa ci weer wi sëñ Mara ak boo ko bëggee joxe Pape Amar léegi junj na ko nee na am na benn numéro boo xam ne boo ko texee dana la jox dana la display link bi nga mën caa jaar pour mën a def sa barkeel sëñ Mara ndax mën nga ñu expliquer loolu ak bu fekkee ne am nañ benn date boo xam ni ca la ca la ñu yem sëñ Mara ñu ngi lay déglu ci yooyu ngeen ci leeral waa diaspora baa ngi lay déglu waa Amérique ngi lay déglu waa Can waa Canada ngi lay déglu sëñ Mara Ndiaye.
bismillah barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ziar mbokk jullit yëpp jërëjëf suñu mbàkke ñu ngi ziar ñi bokkal plateau bi yëpp di rafetlu teewaay bi ak invitation bi di ñaanal rajo bi yàlla na fi yàgg ci moom bi yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér na ñu sant ci suñu borom mi ñu indiwaat ci rajo bi saa su ne ni ñu jox kàttan jox ñu mën nan ba ñu mën a teewaat ci rajo bi kon ñu ngi sant borom bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabil alamin comme ni nga ko xam ne ñun ñëpp suñ mën taxaa mbàkke bëggati defarate ci ndongo yeeg ñëpp rek moo tax mu joxe ndigal lii ndigal lii liñ ci jublu moo ko xam yàlla na ko ci yàlla defal ndax bu ne waa Amérique waa Canada boole ñu ñun ñëpp ñu àndandoo jékkateendoo tegandoo loolu dañ ko war a sant ndax jàgg ñëpp yàgg bëgg la waaye xëy na mi ngi soog a jot te bi mu joxee ndigal li tamit gis nañ ñu jiitu woon di ndigal sixty six lañ ko tudde woon mooy soixante six kër yooyu ba mu ñëw jox ñu lu gën nag ne ñu kaa leen dem ci jumaa ji Amérique ak Canada mboolem gox bu fi nekk regroupement bu fi nekk woo nañ la te jëm ci ni ñu kat waxee Mika xas de waa ñoom Cheikh Béthio waa Baye Fall yi ñëpp ku ci nekk yëkkati nañ suñuy téléphone woo la ñu daje ci réunion yooyu ñu wax ndax dañ kaa jëm ñu kaa boole kenn moom ko ñëpp ko bokk moo tax woo nañ ku nekk suñu téléphone donc ñëw ci réunion yi ñëpp nag àddu nañ ci réunion yi waxee seen xalaat ak ni ñu war a doxalee liggéey bi ba yàlla dogal ñu egg fii ñu egg kon ñu ngi sant suñu borom bi ñu borom bi joxee ndigal bi ñu sëñ bi joxee ndigal ñu tàmbal ci ndigal li woote ñëpp àndandoo ñi ko sëñ bi sàkkoo ba teewandoo ci réunion yooyu muy loo xam ne ni ñu ciy ñaan mooy continuation boo xam du dàq mukk ndax loolooy yoonu murit sëñ bi nag moo ñu tekk lii ñu ñëpp yàgg nañ ci dëkk bi kenn mës ta dégg ndigal bu fi ñëw Amérique ak Canada di dox boobu ba léegi sëñ bi baax borom bi baaxee ko mu jël ndigal teg ko suñu loxo ndigal yàgg na ñëw fépp nag ci Sénégal ak ci àdduna waaye ndigal yi dañoo ñëw ne tudd Amérique ak Canada mu loo xam ni ñun ñëpp war nañ ci xalaataat ni ci sëñ bi jublu ak suñu joxoñ ba tax na ñun bu ñu boolowee lépp si dëkk bi ñu nekk surtout Amérique bi booloo moo tax lu ñu man li ñu man sëñ bi nag bi mu ñëwee ay daayira defar pour ñëpp ànd xëy na nag jamono ñu jàpp ba sëñ bi nag ñëwaat tegaat ñu ci yoon yi kon ñun cant googu li ci gën a am doole mooy ñu xam li ñu sëñ bi joxoon lan la ñu àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo bi loolu jàllee ba ñëpp wuyu ñu ni ñu rafetlu ni xalaat nañ ni bu ñu joxoon ku nekk mille dollars ba loo man bu ñu nee mille dollars ba loo man nag moo di képp ku mën mille dollars nga joxe mille dollars ku mën lu ëpp mille dollars nga joxe ko ku mën one dollar ba loo mën nga jël ko joxe ko lu fi ñëw dinañ la ko dugal comme ni ko sëñ Papa Bamto moo di numéro boo xam ne mooy five three five five five boo ci texee dina la dugal direct ci link bi di nga mën a dugal sa barkeelu bu dul loolu tamit daayira boo jokk ci Amérique ak Canada koo ci woo fi daayira nekk boo demee ci ñooñu boo leen joxee fi xéewal dinañ la ko dugalal ba pare leeralal la ko bokk ci plateforme boo xam ni sa tur dana génn sa numéro téléphone génn sa dëkk ba nga ko joxee génn ak foo ko mënta joxee kon teg nañu waaye stratégie yoo xam ni ñëpp ci ànd rafetlu ko mu loo xam ne transparence bi ñu ci ut di ko sëñ bi di ko séntu ngir ñëpp seen xel mën a dal ci li ñuy def ndax ab murit sax waa buñ joxee ba noppi pare nañ ci wante ngir bëgg lu gën a leer rek ndax lu ñëpp bokk dañ koy daal di taaj rek ñëpp ñëpp xool ko ba seen xel dal ci ba tax na am nañ ñu xarañ ñoo xam ne jaayante nañu volontaire jàpp ci liggéey bi di leeral ci niñ ko mën di leeral ba mu leer nit ñi ñëpp gis ko kon sëñ Mbàkke mbir mi noonu la ndigal li sëñ bi ñu ci di ko sant di ko ñaanal mu yàgg taan nag wér ndax lii lu ñu yàgg sàkku la ñun ñi nekk ci Amérique Canada yëpp ñëpp mën a daje di ci dox saasu ne ba sëñ bi indil ñu ko tegal ñu ko kon nañ ci def kem kàttan te fexe ba balaa de deadline bi nga xam ne moom lañ joxe muy le quinze mars incha allah bu luñ fi am le quinze mars nañ ko jël jébal ko Sëriñ Muntaxa Mbàkke ak nu mu mënti toll mun nag muy di suñu tàmbali ci liggéey bi comme ni ko ñëpp di defee le quinze mars ñu xéwal bi toll dinañ ko yëkkati ak ko ànd ñëpp ak këy ji mu àndal yëpp turu ñëpp ñu bàkkeri ñëpp jox ko Sëriñ Muntaxa Mbàkke kon Sëriñ Mbàkke xam naa du ma guddal kon ñu ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp ay xéwal yaa fi gën ñu mën a barkeelu ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu
jërëjëf Cheikh Mara kàddu yi rafet na kon ñun ñëpp déggandoo ko date date deadline bi nekk na le quinze mars deux mille vingt cinq waaye kon bokk ñu dégg ko noonu it ni joxe bi plateforme bi la ñu utiliser boo duggee di nga gis mbir mi ni muy demee lu transparent la comme ma fa nekk ni boo dugg rek di nga gis la fa ne kon nag ku bëgg joxe boo jaaree ci plateforme bi ñoo ngi koy rappeler encore boo textee cinquante trois cinq cent cinquante cinq bind ci numéro boobu bind ci Touba dana la jox link bi nga nga jaar ci givebeauty la givebeauty dot com jumaay Touba boo ko defee rek da nga mën a contribuer li nga bëgg a contribuer ca njëlbéen ga nag danoo sasoon murit yi nekk fii ci Canada ak Amérique mille dollars par personne waaye mille dollars yooyu boo ko mënee joxe benn yoon joxe ko boo noo ko mën a joxe ay ay tranche nga joxe ko bu yàlla defee loolu jàppandiwul loo mën a joxe da nga da nga joxe ko rek kon mbir maa ngi noonu ñun ñëpp ñoo ngi ci alhamdulilah sëñ Mara dégg nañ kàddu yu rafet yi sëñ Pape Amar tijji ñu dégg soxna Xadi wax waxam kàddu yu rafet yooyu kon léegi dañuy ñëw ci sëñ Mass Boiro xam naa ne ñoo ngi yaakaar ni sëñ Mass mi ngi ci biir panel bi sëñ Mass mi ngi abaat moom it liggéey bu rëy foofu ci Washington bi liggéey bi jógee rek Washington moo njëkk taxaw gannaaw Canada indi somme bu bu con bu signifiant tàmbal ko ci liggéey bi ba tey teewul ña ngay continuer liggéey bi sëñ Mass indi ci ay stratégie yu xarañ ci ni muy fexe ba convaincre taalibe yi ak ak nu mu leen di soññe ba ñu tàbbi ci liggéey bi liggéey boo xam ni mbooloo mi teg nañ ci seen bët Washington nekk exemple boo xam ni ñun ñëpp ñu war a roy ci ñuy doxe ba nga xam ni lii ñuy daj comme mi ñu dajale daan ci am loo xam ni suñ yor sax yéeg ci woon sëñ Maas foo leen toll ci liggéey bi ak nan ngeen di liggéey ci seen côté yooyu sëñ Maas Boaro
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك ذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقالي barke borom Tuubaa assalaamu aleykum wa rahmatullah sëñ Mbàkke ñu ngi lay nuyu di la siyaare la di siyaare mbokk taalibe yi ñuy dajal ci panel bi yépp di béggee ku ci nekk ci ñoom di sant it sëñ Modibo mi nga xam ne moo ñu jox opportunité pour ñu gën a yaatal wooteeg sëñ bi kon di ci sant bu baax a baax xanaa di barkelu ay kàddu rek ndax lii waral lii yëpp lii yëngal àddina bi yëpp mooy wooteeg sëñ Muntaxa te nii rek la war a nekkee moom bu waxee wala bu yëkkatee kàddoom ci taalibe yi yëpp dafa war a nekk urgence émergence la war ne sëñ bu ootee. kàddoom moom noonu la war a mel ci ñun émergence la war nekk ci ñun nga xam ne ku ñu gis rek xam ne ñii am na lu xew waaw kon loolu moom moo war a moo ñu war a moo ñu war a dundal ndax buñ jàngatee diggante ñaari ndigal yii nga xam ne bu njëkkee woon jox ko waa Amérique ak Canada mu dellu siwaat oote oote boo xam ne mbokk taalibe yëpp la ko oo kon oote bi àdduna bi yëpp la daj génn génn léegi Amérique ak Canada waaye gox bu ne dañuy organiser wu ndax liggéey moom buñ ko tegee ci yoon rek mu gën a mu gën a jàpp ni waaye jàngat gi ci am dëgg dëgg dëgg dëgg mooy woote gi jublu na ab pasteef ci mbokk taal woote gi jublu na ab yitte ci mbokk taali bi waaye woote gi won nañu ne dañoo war a dox war ñoo taxaw dox gi mooy le sëñ Muntaxa mujjee wax keroog ba mu ñuy joxaat ndigal lii naan ñu boo jógee ci lii dugg ci lii boo jógee ci lii dugg ci lii kon muy wax ne rek mbokk taalib moom fu mu ne rek dañoo war a waaj te wax na ko ci ay waxam mooy waajal suñu bopp xam ne mission lañ ne ñun dañuy nekk ci mission taalibe boo xam ne da nga jokk ci sëñ Tuubaa rek na nga xam ne missionnaire da nga jokk ci liggéey waaw kon lii nag muy ndimbal bu munuñ ko munuñ ko sax natt ndax dañuy wax ne bërëb sax dina seede nit yow ma fi am bërëb rawatina ak jumaa sëriñ Tuubaa ji kon ñu xam ne lii ñu ñu oo ñu xalaate ne sëñ bi biñ ko noppee gis waxi sëñ Muntaxa sëñ bi jumaa Tuubaa lañ ko lañ lañ lañ lañ lañ ko denc kon muy loo xam ne boo ko xëyaasee xalaat ko tuuti rek mënatoo ànd ak sa sago buñ la ci ooyee ci liggéey waaw kon waxatuma la nit ñi nga xam ne dañ nekk ci kuréel yi création yi waaye oote bi ñëpp la daj mbokk taalibe yi ñi nga xam ne jokkoo nañ ci association yi ñi ci jokkut ñëpp la daj kon li ñu war a def rek mooy jublu ci liggéey bi def ci lépp li ñu mën ak li ñu mënut ndimbal gi ma jàpp ne nag moom lañ sëñ bi defal mooy damay sukkandiku rek ndax ñun moom mënuñoo wax lenn loo xam ne kilifa yi waxuñ ko suñ ginnaaw ndax bu ñuy fàttali ko sëñ Abdou Lahad Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram defal ko njaboot boot bu njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp ñu woote jumaa ji mu ngi cay wax di junj bay junj di wax ne xol bu nangu moo gën bay mu nangu loolu rek lañ xamee taalibe murid ndax lii dañ cee war a wane dëgg dëgg dëgg dëgg suñu bëgg-bëgg suñu bëgg gi ñu bëgg sëñ Tuubaa ak ak ak ak dund gi ñuy dund sëriñ Tuubaa loolu buñ ko defee rek duñu soññeeti kenn ndax sëñ bi bu waxee rek ñun suñuy wax yëpp day kàddu day day suufee ndax sëñ Muntaxa bu xasee ba wax moom li ñu mën a def rek mooy jottali ay kàddoom waaye mënuñ cee yokk mënuñ cee wàññi ndax moom moo yilif ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko suñu kanam lool may ko fan gudd ak wér di sant nag bu baax a baax jarul ñuy guddal ndax li mbokk taalibe yi jot a wax wax nañ ñu xam ne sëñ Muntaxa nag ba mu waxee ne sasuma kenn mooy sas na ñëpp ndax fi mu ne nii ku ci nekk war ngaa làmb sa tolluwaay ci sëñ Tuubaa ndax sasuma kenn mooy sas na ñëpp ku ci ne am nga loo mën def waaw buñ la ne demal defal sëñ bi yooyu yaay natt ba xool la nga jàpp ne moom moo dox sa digganteeg sëñ bi nga defal ko sëñ bi kon waxuma la mille dollars yi waaye ñun dañoo war a rente nekk ci liggéey bi ba nga xam ne du ñu déglu lu dul sëñ Muntaxa ne ñu liggéey bi noppi na ñu door a taxaw waaye tàmbale am na waaye jeexit moom sëñ Muntaxa ko yor kon ñu ngi wàcc ko kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm ñu gën a jublu ci liggéey bi rek bañ a xaar dara nekk ci liggéey bi ba yàlla defal ñu ci tawfeex ñu ngi ciy sàkku di ñaan yàlla defal ñu gërëmal sëñ Tuubaa lépp nag dellu ci ndamu sëñ Muntaxa Mbàkke jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah
wa aleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf sëñ Maas ci kàddu yu rafet yooyu di rafetlu taxawaayu waa Washington ci biir fondation bi ak ak ni ñuy doxe ci liggéey bi fii ci woote bi di ndigalu jumaa ji gis nañ ci pas-pas bi gis nañ méthode collection bi ak méthode motivation ni ngeen di motiver taalibe yi ba taalibe yëpp soobu nañ ci liggéey bi soobu boo xam ne ñu ñëpp teg nañ ci suñu bët kon it ñu fàttali ni audience bi ñu ñu ñu ngi déglu ci diaspora bi murit yi nga xam ne ñu ngi ci Amérique ñu ngi ci Canada fondation bi moo ñëw ànd ak yeneen groupe yi nga xam ne yëpp ay ay ay ay mbooloom taalibe lañu muy Mika nekk groupe xasida yi ñooy ñëw nii di woote waat ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàlla yàggal ko fi moo ko woote mu jëm ci jumaa ji
Fatima boobu ba tey ñoo ñoo ngi ci nekk di def collection yi di ci woote ak di ci waxtaan plateforme bi moom la ñëpp utiliser bu transparent la loo bëgg a joxe boo ci jaaree rek dana yomb lool ni nga ciy jaaree nag lu yomb la mën ngaa jël numéro bii cinquante trois cinq cent cinquante cinq ci texte messaging nga bind Touba nga bind Touba soo bindee Touba rek daana la direct ci link bi bu ko defee nga utiliser link bi mën a contribuer facilement kon jërëjëf sëñ Maas Boaro ci kàddu yu matale yooyu kàddu yu rafet yooyu xanaa noonu ñu dem ci sëñ Papa Gora Samb Papa Gora moom it moo muy taxaw taxawaay bu rëy rëy ci liggéeyu fondation bi ci kàddoom ci jotaleem ak ci pas-pas bi sëñ Papa Gora booba ba tey gis nga fondation bi ak ñii mu àndal ci liggéey bi ak waa Cincinnati ñëpp nii ñuy doxee noonu mën a indil stratégie bi nga xam ni gis nga ko ci seen côté Cincinnati waaye nag overall ci ci mbooloo mi nga xam ni moo ŋànk liggéeyu jumaa ji Papa Gora
aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim barki borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Baye Mbacke ñoo ngi lay nuyu di nuyu sëñ Modiba waaye di nuyu suñu waajuru bopp bi nga xam ni soxna Xadi Sall di sëtu borom Daaru Muxti ak mboolem ñun bokkal panel bi sëñ Mass Boiro ak sëñ Pape Amar ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy déglu à travers rajo alors Dakar international partout dans le monde mel ni Sëriñ Tuba la ko waroon def na ko lan moo ko waroon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yebal ni ko yónniwuma la ci wenn xeet ci mboolem adduna bi laa la yónni rasulullahi ñëw tasaare l'islam tasaare l'islam ba xëy dem ba kook saxaaba yi ñu liggéey ci mu dem ba l'islam mel ni lu rab Sëriñ Tuba ñëw ni ko caf yeesalaat l'islam yeesalaat alxuraan yeesalaat sunna àndandoo ko ak mboolem jullit yi ñu wootewuma tarika murit laa wax képp koo xam ni jëm nga ci yàlla rek maa yow bokk fu ñu jëm liggéeyal ci rasulullahi ba nekk ca gabon def am maaram sàndarma ba ñëw dindi ko ni ko jàq xaju fi sempi ko sànni ko sëriñ tuubaa ca maanu ga taxaw di ko xool ku ñuy wax yelli sëy ñëw xeex ak gendarme ba ni danga koo tooñ ba yàlla faye sëriñ Bamba ñaari jumaa mu ñaan sunu borom ci ma dëbul foosey ni ni sunu borom sama jumaa ji képp koo xam ni def nga ci sa wërsëg bokk ci ñu koy liggéey ak ña cay taxaw ak ña cay soññee da nga leen jéggal àdduna ak alaxira ñaan ko sunu borom sunu borom may ko ko sëriñ Tuubaa làqu bàyyi ko Cheikh Modou Moustapha mu wane njàmbaar ca jumaa ja jël quarante cinq kilomètres gasaraay bi njaarim ba Touba ngir taxawal jumaay Touba maam Cheikh Ibrahima Fall tabeleen cëndu la liggéey bi Cheikh Ibrahima mujjee liggéeyal sëñ Touba mooy ca ngafam raay ma ñu yóbbu ko ba dula mu taxaw dugg ca pax ma ngir jumaay Touba egg Cheikh Modou Moustapha fondement ko bàyyi ko ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Madal Fadal Cheikh Madal Fadal song ko mboolem jigéen ñi ak góor ñi ak mag ñi ak ndaw ñi àndandoo songul jumaa ji ba le 7 juin 1963 mu inauguré ko Seydi Nourou Tall Cheikh mu Cheikh Omar Foutiyou Tall ak ki nga xam ne mooy di Baay Ñas ak ki nga xam ne mooy Alaaji Abdou Aziz mboolem ko amoon jumaa tëj nga fi jumaa ñëw ànd ak Cheikh Modou Fadal mu ut mu dem xot ba ni leen nag seen xottu jumaa ngi noonu fu jamono toll ngeen tollale ko fa Cheikh Abdou Lahad ñëw yokk sëñ Sidi Muxtaar ñëw def juróom ñaari sorol Cheikh Mamadou Muntaqa Sëriñ Tuubaa gis ko jaxran ni ko liggéeyal jumaa ji mu woote mboolem ni ku lële rawoon yéene naa la ci liggéey bi dinaa ko woo àndandoo ko ñëpp amariñ nag joxoon naa leen juróom benn fukki kër ak juróom benn waaye Serigne Touba dab na ma liggéeyloo ma jumaa ji kon ni ngeen ñëw ñu songandoo jumaa ji Amérique ni kon li ñuy def mooy nan àndandoo ñun ñëpp ñu jël Mika Parcet Dramé jël ki nga xam ne moo di sëñ Mat Njaay xasaayit day jël ki nga xam ne moo di sëñ Rijaal nekk ci ci jaal batal maraaxit jël Serigne Fallou Samb mi jiite fa ne seen Cheikh Amadou Bamba jël waa Canada ak Amérique ñu ñëpp ñu àndandoo waxtaane ko ba mu saytu ba sell ñu daal di songandoo liggéey bi def plateforme boo xamante ni plateforme boobu képp koo xam ni fu waay toll am sa alal am sa yéene boo ko ci defee mën ngaa toll xam fi mu toll mu sécuriser muy Mastercard muy Visa wala ci bépp daayira boo xam ni nekk nga fa ci yii ñu lim boo fa demee ba Amérique ak Canada boo ne damay dem ci ndigal lii nga xam ni moo di jumaa ji daan la jox sa barkeelu ñu tàmbalee ko nag mille dollars ndax Serigne Mamor mi kilifa diaspora bi yàlla na fi yàgg ci wér ba liggéey ba amee dafa génne woon mille dollars ni maa ko tàmbalee ñu ne comme moom tàmbalee na mille dollars nag kon kenn ku ñu doon sañ ngaa roy ci sa sëriñ te la mu tàmbalee ñu ni kon mille dollars la waaye yëmunu ko foofu lu waaye mën lu ko ëpp ñu defal la ko ci waaye lu waaye mën loo xam ne yées na ko ñu defal la ko ci ndax addi Sëriñ Tuubaa moo ne woon ku ma jox benn dërëm ma ful ko junni boole kook samay ngërëm waa ju ma jox junni ma ful ko million duniyaa waxuraa du tàggoo kii bon waa ju ko jox million mu ful ko fay la fil jinaani yombal xiyaam mu teedu am ay bàkkaar suñ boroom yàlla ful la fay la fil jinaani képp kuy jox Seex Bamba doo dem miraas looloo waral sëriñ ma siisa ndonga sëriñ Tuubaa bayloo ko ab tool mu bay tool ba ba mu egg amu ci lu dul benn dërëm mu yenn ko yóbbu ko ba gànnaar jox ko Serigne Touba fekk maam Cheikh Ibrahima Fall Ahmadou Fall ak Serigne Ndiaye Ibrahima di bég ni ci ngaay kur dikk bàyyi Lalla Fall indi fa junni Serigne Touba ni junni bii ak dërëm bi ñoo yem pas-pas kon murid yi géeb Serigne Bamba la ñu sonkandoo ko àndandoo ko Amérique ak Canada te sëñ Muntaxa tegoon ci ni bu benn addiyee ñëwati te liggéey bi eggul kon liggéey jumaa ji beneen addiyee wattu jóge ci fenn di dem te liggéey bi eggul ñu soxla deux millions de dollars te murit yi fi nekk xëjunu ci deux millions de dollars kon ajana na war a taxawee mooy am pëseef kenn ku ne xam ni bu la fa jumaa ja fekkoon kon ba ma sorang sorang ànd ak Seex Moodu Mustafa tey la fukki kël ak ñaaram ngir organisation tubaab bi ànd ak suñu bàll coro koroog ba nga xam ni jigéen ñaa ngay dem ca ndox di gas carrière ya koroog ba nga xamante ni bàyyi na fa daanoo na ca jumaa ja ñu ni faatu na sëñ tuuba sëñ fàllu ni suñu borom kat ak sëriñ tuuba digalewu ma ak moom kenn faatu ci jumaa ji daal di koy ni docteur bi dama ci la nga man indi baatin mu taxaw jumaay tuuba ñu liggéey ko ba mu egg nit faatu ci jumaay yow jooju nag ak yéene jooju nag Cheikh Amadou Muntaxa mi ci mbég mbég taar bi mi nga xamit ni moo wutu sëriñ Bamba Cheikh Amadou Bassirou mat ko sëkk topp ay baayam topp ay rakk am topp ay njabootam ba ci ay doomam taalibe yi Cheikh Modou mu sëñ Muntaxa di ca xool sëñ Tuubaa ci ñoom moo woote nag songu liggéey jumaa ji nga xamante ni képp koo xamante ni amoon nga yéene liggéey sëriñ Tuubaa liggéey baa ngoog ñu ci woo Amérique ak Canada waaye rawatina nag fondation Maam Jaara yi nga xamante ni pour musa tudd liggéey Touba gis na xeer ya ne jigéen ña doon roote te yenn xeer ya ca ndok kon nag ñu woo moo leen daay rëy Maam Jaara yi nekk ci Amérique ak Canada xamal leen liggéey baa ngoog jigéen ñi mus ko def ginnaaw góor ñi àndandoo ak ñoom waaye duñu fàtte waa ëxlu Baye Fall di waa kër Cheikh Ibrahima Fall ñun àndal liggéey bi ak mboolem taalib yi kon suñu mbàkke lii moo doon liggéey bi ñu ciy soññee mboolem liggéey Amérique ak Canada te xam ni sëñ Tuubaa nu ko boole.
macha allah sëñ Papa Gora kàddu yi am na solo lool kàddu yi am na solo kàddu yi yaatu na macha allah wax ji rafet na lool mu mel ni. fii nga fii nga ko teg rek ak fii nga jaar résumé na jataay bi résumé na li waral ñu tey jii dugg ci ci rajo Allo Dakar suñ Modibo dalal nu kàddu yi mat na sëkk xam naa ne ñoo ngi xaw a jot catu émission bi mu mel ni rappel bi suñ benn woo sëñ Mountakha jaarale woon ko ci porte parole bi bi mu woo ñu woo Amérique Canada daal di ñenn ñenn ci Sénégal daal di jot jëwriñ Fallou Samb jëwriñ Fallou it yaatal ko na mu war a jaaree woo ñi nga xam ni ñoom la nekkal fii ci Amérique ndax dañ ne Amérique Canada daal di jot jo jo jotoon ceeg seen papa c'était Dramé woo ko yemul ca loolu mu woo. waa kuréelu xasida yi fi nekk yëpp yamul ci loolu mu woo waa Canada di di waa Montréal ak Zadul Musaafiri ñëpp mu jot jot leen ñu woote jataay ñu waxtaan ba tënku ba ñun ñëpp ñu sóobu ci liggéey bi yaa ngi koy wax léegi Papa Golo mu doon joxoñ boobu nu joxoon ci soixante six kër yi waaye kàddu ñëwaat ndigal ñëwaat tegu ci kaw loolu ni lépp na jëm ci jumaa ji ñu continuer liggéey boobu nekk ca boobu ba tey ñoo ngi collecté nit ñaa ngi ci participer encore ñu koy fàttali ñu ñuy déglu soo bëggee joxe da ngay jël numéro bi 53 555 nga texte message la nga nga bind Touba boo bindee Touba mu jox mu indiwaat la link bi link bi gi bëde la daat gi bëde daat point com daat Juma Touba boo ko defee rek plateforme bi dina tijjeeku da nga gis sax comme ma fa ne muy lu transparent la donc li ñuy joxe lépp ci koom fi mu toll nii léegi rek ñoo ngi may jox ay ay ay feedback cent trente mille dollars et quelque dugg na ci plateforme bi ñu fàttali ni le ñoo ngi koy tëj le quinze mars incha allah lépp luñ fi dajale danañ ko jébbal Cheikh Ahmadoul Mountakha kon ñoo ngi soññaat mbokki taalibi yi ne Canada mbokki taalibi yi ne Amérique tey jii ñoo ngi doon expert jot jëwriñ Pape Dramé waaye dafa nekk ci xat-xat am mbokkam moo wàcc mu liggéey ca New York loola sax fekk na kooko daa bokkoon ci Hadiyatul Rahma muy ab programme boo xam ni moom it fondation bi moo ko ŋànk Hadiyatul Rahma mooy waajal mbokkam moom nga xam ni bàyyeekoo na ca New York mi ngi foofu ci New York ca morgue ya ñu koy waajal ku ñoo ngi koy jaale sëñ Papa Dramé ci turu jëwriñ Fallou Samb waaye di ñaan yàlla sunu borom yërëm ko tàbbal ko àjjana bi jaay si dul wasi barke Cheikh Al Khadim ca noonu sëñ Modou Ndiaye xasida day pap góore yaa ngi koy wax moom it tey jii dafa am ngant mi ngi ci board meeting ci ci groupe xasida day waaye moom it mi ngi ànd ak ñun ci liggéey barki démb rek ñoo ngi jotante mu ni liggéey bi ñun ñëpp ñoo ci soobandoo ci soññe bi ak ci joxe bi waaye jëwriñ Rijal Gueye Pape Góore dina yow da ngay jotante moom lu bari moom it soobu na ci liggéey bi kenn gënu leen cee feeñ indi nañ ci seen contribution ba pare ñoo ngi continuer di ànd ak ñun ci liggéey bi xool nu ko mën a defee ba liñ ci bëgg a def lépp ñam ko kon daanaka def nañ tour de table xam suñ porte parole di suñ El Hadj Modou Kayte Thiam moom it xam naa ni moom lañ bëgg mu tëj jataay bi suñ Kayte Thiam bu fekkee ne mi ngi ci biir suñ Kayte dégg nga kàddu yu rot fii yëpp mu mel ni liggéey bi fekke nga njëlbeen gi ak woote bi ak ni mu tëddoo ak fi ñu fi toll de ba tey sëñ Kayta boo doon boo boo doon récapituler li ñu fi dégg lépp ban ban aspect nga gën a mën a insister pour woote bi gën a yaatu ñëpp dégg ko ba nga xam ne lii ñu sumb nii danañ ci gis loo xam ni sax suñu njort yeggu ci woon suñu alaaj moo di Kayta Thiam El Hadj Modou Kayte Thiam mu mel ni suñ kayte it jotoon naa ko sànq kon daanaka rek sëñ Modibo ñoo ngi ñëwaat di la sant bu baax tey jii fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America moo fi nekkoon xam naa ni jataay bi temps bi jeex na dañuy jox closing remarque bi sëñ Mara Ndiaye mi nga xam ne sunu kii bi moo ko jiite comité bi nga xam ne ñoo ko sëñ Mara kon dégg nga tey ji waxtaan wi nga xam ne nii moo bàyyi ko fii tey tey fondation bi ñëw ànd ak ñi mu ñi mu seqal liggéey bi ñu doon tàmbali def tour rajo yi xam naa ni fan yi dinañ dugg ci rajo New York yi di rajo euh, sunu Afrique rajo Moodu bu Alain Jigal ak rajo Mika incha allah ci fan yi dinañ ci dugg ja wéyale woote bi nga xam ne ñoo ngi koy woote li jëm ci jumaay Tuubaa sëñ Mara nan ngay tëjee jataay bi bu ko defee ñu daal di libéré wu daal di sant sëñ Moodu ba ba beneen jamono sëñ Mara.
waaw jërëjëf sëñ Mbàkke di waxati alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ndax di jaajëfal sëñ Moodu ba ndax li ñuy yaatal ci rajo yi vraiment ñu jàllale suñuy kàddu ba àdduna bi yëpp di ko dégg loolu rafet la te ñu ñaan yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaay bi di ñaa di ñaanal ñiy déglu ñëpp di leen leeral ne ndigal gii de ndigalu Sëriñ Muntaxa Mbàkke la Sëriñ Tuubaa Mbàkke ndigal nag bu jibee dañ ciy gaaw lu baax dañ ciy gaaw ku ci man ku dégg woote bi rek yëkkati sa dërëm fexe ba tàmbali sa dërëm sunu borom mooy eggale liñ fi aussi ñëpp ci Amérique Canada yàlla na ko borom bi defal te ñu fàttali ngir dugal xéewal yi tamit kuréel goo rëcc kuréel goo boo mënta dugal ci cinquante trois cinquante cinquante cinq bi nga kuréel goo woo rek dinañ fexe ba sa xaalis dem bu fekkee xamul ñu dugalee kuréel boo ci dem bu ne ne damaa bëgg a dugal sama xéewal dinañ dinañ la ko dugalal ba mu egg bu boobaa di nga yor reçu bu leer pour loo xam ni sa xewal fi mu dugg di nga xam kon ñu ngi ci woo ndax ñun li mooy suñu mission woo ñëpp fexe ba ñëpp seen dërëm dem ci kon ñu ngi koy def te woo mbokk mbokk doomu aadama yëpp ku ko ci man na nga ci tàmbali def ci mille dollars ci boo ko mënee boo mënee nga lu ko ëpp nga def ko boo ko mënee joxe par tranche nga def ko soo mënul loolu nga def la nga man loolu la sëñ bi woote sëñ bi daa woote ne ndigal laa nga ne ku waay waay ñu joxal ko ko ci kon ñun waa Amérique ak Canada dañ ci kenn man liggéey baa ngi nii mbir mi daanaka boo xoolee du rawante waaye ñun maam Cheikh la ñuy roy maam Cheikh la ñuy roy lépp lu jëlee suñ Tuubaa ci kër maam Cheikh la jóg kon nañ fexe ba jël xéewal yi rek fexe ba joxe ko ba ñu takk la quinze boobu incha allah ñu takk lu am solo tàmbalee ko liggéey bi ci liggéey ndigal suñu mutaxaar yi ñëwaat defarwaat waajaat tey dem ba ba keroog ndigal li di waaj comme ni ko suñu maas boor a waxee kon suñu mbàkkee mbir maa ngoog ñu ngi ñaan yàgg taxawaay bi yàgg ñëpp ñu yàgg di ko fi daje di ko fi woote ñëpp tamit yàgg di di dégg woote bi di joxe kon ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu
jërëjëf sëñ Mara jërëjëf sëñ Pape Amar ak temps bi nga jël yow it jóge Canada ak condition difficile yi nga connecté woo waaye ñoo ngi sant soxna Khady Sall ci taxawaay bi di sant sëñ Mass Boiru ci kàddu yu rafet yi nga xam ne indi na ko waaye di sant sëñ Pape Goro moom it ci ni mu duggee ak ni mu leerale ndigal li ak historique bu mu def ci taxawaayu jumaa ji kon sëñ Modibo jataayu murit yi ci njiitalu fondation Cheikh Ahmad Bamba ak North America ñoo ngi yeesal sa sant ci yow di ñaan suñu borom defal la tawféex ba liggéey bii nga liggéey ci diaspora bi yor moyen boo de communication boo xam ni ubbi nga ko pour toute la diaspora bu nu amee lu war a jàllale ñu jàllale ko rawatina lu jëm ci mbiru diine ngay ànd ak fondation bi ci lu ñu yëkkati ci kër Sëñ Tuubaa fu ne ak ci Hadiyatu Rahma ak fu mu mën a ne ngay indi support boo xam ni boo xam ne ñu ngi koy apprécier gis nañ ko yal na yàlla fay la kon ñoo ngi yamale wi fii programme bi di di woote waat ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha moo ko yëkkati ñun waa Amérique waa Canada yëpp àndandoo ci di ci woote di ci liggéey kon ñoo ngi wàcce fii kàddu yi sëñ Modou ba naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
Yeah.